juróom fukk ak juróom-ñeent si nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak benn moom la wax contact mooy yi nga xamante ne ñu ngi leen di saytu di leen di topp ci suñu bërëbu liggéeykaay yi juróom-ñett yi ñoom moom la wax cas yi ñu jëlee ci transmission communataire mooy yi nga xamante ne kenn xamul ki leen ko wàll te moom mooy yokk mbas mi ci dëkk bi. yooyu nag ñu ngi leen gis ci diggante Patte am nañ fa benn am nañu benn Touba am nañu juróom benn ca Thiès ci ñi nga xamante ne ñoo tëdd hôpital ñu leen di faj fukk ak juróom-ñeent bi ñu leen saytoo gisatuñu doomu jàngoor bi ci ñoom wër nañu ñooñu nag ñu ngi leen gis ci l'hôpital yi dalal jàmm am na fukk ak ñaar yoo xam ne wër nañu jam ñaajo am na ñeent Fan amna ben, Kolda amna na selu amna louis am ñi nga xam ne ñoo tëdd hôpital seen yaram mi ngi am tan ba dalee ba mi Covid 19 duggee ci Sénégal ba léegi ñu ngi toll ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar ci ñi nga xamante ne ñu ngi yore doomu jàngoro ji ci ñooñu ñetti téeméer ak fukk ak juróom wër nañu juróom-ñeent génn nañ ci àdduna benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon ñu dese fii ci ñi ñuy faj ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ministère de la santé action sociale mu ngi dooleeti di ñaan askan wi ñu topp digle yi nga xamante ne mooy tax du ñu am feebar bii ñuy wax Covid te tamit du wasaare woo ci biir Sénégal. maa ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam